dikk leen ñu lekk bismillahi rahmani rahim dog jot na ci Dakar ak li ko wër alhamdulillah fàtte ngeen Afrique bu dog jotee bismillah mm. bisimilah doog jot na ci Dakar ak li ko wër alhamdulilah axal leen limon ji ma rek mm. lay lay di laa mu jàppee jën wi la tey axal soble si mm. Ah! jos yàlla bu ma rey bàyyi ma si àdduna si bu ma mos rey soo ma reyee lu ma lay jëriñ du ma yóbbu àllaaxira lu ma lay jëriñ bàyyi ma fii rek may lekk maa ngi ñëw Afrique seen gën yaa dàq maa ngi ñibbi ah! maa ngi ñibbi ಹಾಯ್ ಫಾತೆನೆ ಕಾನೆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ kaane gi may fàtte nii de xay dal na ma di ko fàtte walla moo tax kay mu lewet maa ngi wax lii de xam lu manqué laa illa kaane ga ma fàtte la wëy dana hëpp ku may wax naan wàññil kaane na noppali ko wàññil limoŋ na borom noppali ko Mm uh-huh. yépp rek na borom noppaliku ma ne góor ñi may bëgg a takk tax ak guñ sax di ma xelifa ko def ñooñ dañ fay fañ raglu sibbutu ma bi ma koo fàttee daggam la raglu te sibbutu moos way ndax ñoom xag guñ sax riit nag di ma xilifa ka defi yëf <coughs> I'm like what the hell yow ku la wax jaral nga ma loolu you know jaral nga ma wecceeku right now te xamaguma la sax nga dima ma wecce baal lekk vidéo baal nangam waxuma la sax am like yow ku la wax ne jaral la gum nga ma weccee ko mu bëri mi may wecc <coughs> góor ñooñu wét ne ñoom ba ñuy foog ne ñoom buñ tolloo pare rek <coughs> wax ak yow rek yow ngaa war a tëb naan wuy oh, xam naa góor ah, ok yes sir yes yes sir <laughs> what Déjenme bugaay ñoom ba ñu foog ne yow nga leen di jaral loo ci saasi maanaam ñoom buñ la ko jaralu ci saasi rek yow bu góosee wala baaxoo <laughs> mais laajte rek nuñ la koy jaralee ci saa si mooma jaaxal heg <laughs> seeguñ sax diriku ba lekk vidéo baal lonk nit ñi di wax si ñoom bu ma la takkoon de <laughs> it's not like <laughs> bugguma like mënuma bàyyi ni ñi lonk leen di wax si ñoom waaye wa <laughs> bon ñoom dañuy ñëw ak si yeguñ sax baal lonk nit ñi di wax si ñoom baal lekk vidéo waaw loolu rek mooy sa sikk dooy saaga ndey te ngay kaf reer dangay wax dëgg dangay ngay wax lu jëriñ askan bi yëpp waaye lonk nañu di wax si ñoom <clears throat> ak lekk vidéo <laughs> barki salaatu faatiha guys góor ñi dee ñëw pour ko waa takk ñu bëri loolu lañ du ñu ñëw yëpp laa dee bugg you know waaye like su xamee benn bala ñaar koo ci bugg mu tëb rek di la wax lii daf day raglu it's not like lii mënuma koo bàyyi wala lii lu bon la wala nangam it's just <clears throat> yow nga xalaat ok waaye léegi soo tëbee rek wecci suma àdduna te xamaguma sa tur xamaguma sa yaay kan xamaguma sa xamaguma sa to jikko ndax danaa la buggam de after soo you ma wekk yëpp you know <clears throat> ndax yow danga ko jar ak leneen ak leneen loo may wecc loola la loolu laa di xalaat you know ak yow ndax danga jar wecceeku mi yëpp ni ninki nanka gu si butu ni kàkkataar gu si ndax yow danga ko jar yow ndax yow danga wecceeku boo amee jikko ju bon noonu ndax yow you know jar nga ko wecceeku du caaxaan borom fa ko war a jar waaye ñoom fa ñuy tëb rek xeeg seeguñu xamuñ sax ndax jël ba pare yeneen ñu ne ñu dañuy ñëw rek ne la I love you love ma ni am jóg mu sibbuti you know I love you waxal gis naa la ngay laay waxoo ak man yow live rek la yónnee message demoo yu di live rek am lay wata loolu dafa raglu te gars yi xam nga xam nga daal du ñu xam ne loolu dafa raglu I don't know <laughs> ko <laughs> yow lay fekk I swear to God guys lii dafa pani si man de xaw ma nag yéen xëy na paniwul si yéen waaye man xam naa lu may wax nii imagine nga ñëw fekk mag mu toog you know di gëm boppam ay xat nga bugg mu jox la boppam jébbal nga jël ko yi noonu ngay ñëw si façon yi wax yi noonu alaatanta borom dana ko def su wéree <laughs> léegi lu mu xamee boppam xaddi yëpp di gëm boppam mu give yëpp give yëpp jox la boppam yi noonu pour nga jël ko te fekk gisut ay sign yu baax gis na sa sign yu hopeless sign yi nga koy jox mu gis ko pare naan la jël ma ndax borom ku wér la noonu su ko borom defu nga ne borom bugg te sëy ba ki su tëbee rek nga jël ko yu noonu tëb rek nangu pour nga jël ko <laughs> even though woon nga ko yeneen jikko yi muy góor wala jigéen ok ku la woon yeneen jikko yi nga tëb rek ignore jikko yi tëb rek dugg yu na <clears throat> it's not like yow moo tax nga def ko it's just yow ngaa just I <laughs> waaye askan wi xamuñ noonu dañuy dañuy wax ne loolu mooy bëgg a sëy you <laughs> mooy kuy xaar ba gis ku ko mën a amee mu yaakaar ne kii mën na ko amee xalaatoolu <coughs> bëgg sëy is xam nga bëgg sëy xam nga bëgg sëy is not just nga tëb rek you know nangu anybody jël la <laughs> like a hopeless idiot <laughs> that's just you're hopeless and you're running from life you're running from you and your problems you're like take me <laughs> take me <laughs> yes take me you know you think that su la ko jëlee sa problème yi ak life dina change wala nanga foogoo but it's not Bouga Seye de but for Niro ak Bouga Seye yéen nu ngeen di def ba Mouhamed di leen miir Mouhamed mi nga xam ne miir rek Mouhamed buñ saagawul bu leen miir ay naan salté dafa stupide wax yooyu bu leen si miir bu ñu waxee ba sonn noppi Mouhamed lu nekk rek mu miir leen askan wi def leen ndànk man yéen laay dimbale pour ngeen xam nu ngeen di xamee jigéen surtout jigéen ji dund métti te gëm boppam ba mel ni ami jóg taxaw leen ma waxal leen nu ngeen di def yéen góor ñi si butu yépp déglu leen ngir yàlla baleen di ma xas ak di mer wéykaani gëpp gi <clears throat> ta xel duuma seen ennemi yéen laay dimbale just def leen ndànk please stop di ma di and going crazy and just di ma saaga and going crazy <clears throat> ma lay dimbale you don't know that I love you moo tax ma lay dimbale why you doing all this <clears throat> listen I love you that's why I'm helping you so please just defal ndànk xaw ndaw limon bu rëy wala lii moo ngi tubaab bi la waaye bu rëy a la ni borom ni man masha allahu ma ne nu ngeen xalaat si nit koo xam ne nii lay ñëwee ci yow nga koo war a jël wala lan boo wéree doo ko jël boo ko jëloon ñu ne bëggoo sëy góor seen bopp ñoo xamul nu ñuy waxee jigéen yéen ñu si bëri jigéen ñi leen sëyal billahi fañ jàpp si yàlla rek sëy ak yéen waaye ni ngeen di waxee ñoom buñ ko toppoon duñ sëy ak yéen laaj leen ko jigéen ñi bind leen wax waaye ngir yàlla jigéen ñi bind leen wax bu leen ma baxee wax ji man kenn fa ñuy foog ne may fen waxal leen nit ñi wax yi ñuy wax a yow <laughs> soo ko toppee doo seeg ñoom waxi soo duggee dee la ñuy waxee nit ñi I swear to God xaw ma tax ngeen di def loolu yéen lu tax ngeen di def loolu ngeen a dund métti te confess wala lan wala ngeen a xamul àdduna wala lan waaye ngeen di wax ak nit ñi like that and ngeen expect nit ñi sëy ak yéen like that how déggal ñu naan maa lekk ñoom bugguñ ku fi tiim di jooy kumdo naan <laughs> a lekk tey oh, fii ku fi liggéey ku fi dul wàcc liggéey gis palaatam lekk ba kontaan ba mel ni kuñ may ay million kumdo surtout lekk gu la neex wàcc liggéey moo xiif ba sonn sangu jàkkaarloo sa palaatam lekk ba mel ni fañ la jox caabi banque ku dul def noonu kumdo du ngeen ma baax man ngeen yëpp surtout bitim réew gi la boo wàccee liggéey ba xam sa lekk gu la neex nga sangu ba jàkkaarloo moom ba taal ami yow di seetaan ngay mel ni kuñ jox visa te nga ne Afrique te kër mangoy te ñàkk ba jox la visa nga ne ah wooy arjana xamoon naa ne sama ndey seen comme ni ngay foogee ne xam nga àdduna noonu si saa si du ko def bi <laughs> doon wooy noonu laa foogoon buñ ma joxe woon visa so calm down noonu ngay mel bu gisee lekk la yax hmm. fa mel ni ma ko yëy fa mel ni fa ma ko yàlla bu di fa suma gémmi gi fa ni ma koo yëy de <clears throat> ah fii moos ku fi wàcc liggéey te du gis bu lekk ba kontaan na mel ni kuñ jox visa duuma Gambien de Sénégal la ah foogoon ne man lay wax xaritam bi lay wax téléphone yéen ab jën beneen yi taxaw ma yéegeen bi rek dana nooy jërëjëf love you too fii moos wàcc liggéey dañ jox ko palaatam lekk te du kontaan kumdo moom laa leen di laaj soos bi fa xam soya soos soos soos bi soya soos la ak limon limon ji ma ciy sotti nii ak kaani suuti safal boo xam maanaam ajaa wala dara ak xorom mooy soos bi ak olive oil am den nga def soble xaaraa hmm. mm-hmm. yax umé go yi man lañuy bugg a rey di ma attaqué de <laughs> ah, waaye ak ñu ñëwee fa ñuy ñëw ne la I love you nangam nangam ñu ne nga tiit ne leen ah calm down ñu ne su fekkee laaj nga leen soo laaj gu gaay looy tiital faale woo leen soo leen laaj nga ne ok calm down dégg naa la doo wax calm down kon ñu ne ok oh, dégg naa lu nga wax wala nanga nanga wala ok nañ def ndànk set rek ñu tëb kër 24 hours jël ma jël ma I love you eh. rek dama di wax ne wow <clears throat> lu si bëri ma xala back parce que dama jàng suma lesson you know léegi soo back out nooy def mooy nga continuer di wax ak borom si saa si nga miin borom ñu noonu xam nga rekk loof dafa neex soo ko miinee saa si nga sóobu that's dangerous man you know xamoo borom nga sóobu wan naa yax <gasps> wana naa yax yëg naa yax ba na muy xaañoo di wàcce xaw ma ñëw dikkati ci jën gi wan jën ndax jën wi dimbali ma puus ko mu wàcc wana naa yax dem na dem na du yax bu rëy di jéem a jël lu ma lu puus yam ba far loolay bëgg a cam far far loolay xam ya xaw dëmm yi la sayal nañ ma tey walla te wax naa dëmm yi ne danaa lekk seen juróom-ñaari maam suñ ma bëggee lekk man may lekk seen juróom-ñaari maam te du naa du ne dëmm laa de seen xam-xam bi laa use lekkee ko seen juróom-ñaari maam man su ma du woon dëmm dëmm yi du ma leen lekk xam nga ñan laay lekk feek sëriñ yi ak nit ñu bëgg gune ma du woon dëmm ñooñu laay lekk <coughs> su boroom ñëwee naan la I love you know ngay xalaat nag kii wax na dëgg or not you know rek borom tëb di la la kool kër waa nga ne laa ila kii du def ndànkam ñeneen ñi dañuy ñëw rek bëgg maa suñ ma gisee may def vidéo tax ñu foog ne you know ñëw rek vidéo call appel vidéo nangam nangam wala ñu call ma vidéo you know su ma ko xëyoo lu tax xëyoo vidéo bi I'm like oh my god xamaguma la and stuff you know <clears throat> moo yow saa yu ne si vidéo yi nga naan lan la <laughs> lay ma ne waa di moo yow da nga faale vidéo saa yu ne yi ne leen waawaay vidéo yi fa wute vidéo yi nga click nii di waxtaan wala di comédie wala di wax mbiri askan wi suñ problème yi fa wute ak ni call like ngay def ak moom vidéo call you know koo xamu ko mu jékki-jékki rek call la vidéo su defut du bon sax you know just waxtaan nii ba te gari ndi foog ni man du may rus you know just because maa ngi nekk si vidéo yi def comédie wala lekk nii wala def you know stuff <coughs> wala nu may waxee fa ne man du may rus at all like fa fa man rab laa wala doo mën nit like maanaam ñoom mën nañoo commencé wax ak man xaw ma leen sax ñu call ma vidéo ma xëyu you know just lan ngay wax nit ki lan nit ki xamagoo ko koor mu koor la nga jàkkaarloo moom si vidéo call just like that te man nit su ma laajee dama dee rus first time bi at least you know it's not like du may rus at all léegi benn paa daf ma kooloon démb la xam nga mooy ki démb démb la xam naa <laughs> benn paa kooloon mu ne def ma lay mu ngi dëkk si dëkk bitim réew yi bugguma wax turi dëkk du paa paa waaye moo magee xaw ma ñaata at mu magee ëpp na fukki at de fukki at ak ñetti yooyu war na koo mat wala fukk ak ñeent soo du paa paa waaye paa tuuti yi noonu koor ne ma lu paa bi def te war koo def mooy paa bi waruma woon ak kool noonu de day rek jos bi ko bind bind na ma te xëyuma ko mu yàkkamti kool ma ci saare ok xamul lu may def lu tax xëyuma ko ok whatsapp bi kër kër kër you because suma numéro bi maa ngi ko def si page because maa ngi jaay léegi you know mooy problème bi guys lii mooy problème bi numéro bi anyway so mu call call call ma xëyu mu la bind xëyu xawma ma ne ko ne ah moo tax mu pare naa ko seet waaw ma ma laa ma laa call pour wax la ne ma laa bugg ma ne ko ah waaw lan la waxoon na sax ndax danga ñëw ndax xam nga dëkk nangam ndax mas ngaa ñu dëkk nangam muy dëkk bi mu nekk ma ne ko déedéet ndax yaa ngi plan pour ñëw foofu ma ne ko déedéet oh my god loolu ma maanaam waruma koo wax loolu te fekk man dëkk boobu mosuma faa dem te nekkuma di plan pour dem fa loolu si ne come on guys waxal leen ma lu lii moo tax ma leen yéen mënu leen a wax ak jigéen xool leen paa bu nga xam ne ëpp waxee jigéen ba tey paa boo nu mu doon waxee man jigéen ju gëmul boppam te confis dof mooy dugg ci paa boobu ci façon ñu wax yooyu mu doon waxee ak man noonu laaj jigéen yu seen bopp yi te xam luy nit ku doon nit ku la mën a xamee ci law ndax danañ jël façon ñu wax boobu taxaware ma waxal lu mu wax paa bi ne oh my god jox mu ne lu tax ma wax ko ne xaw ma dëkk boobu mosuma ñëw si dëkk boobu te nekkuma di plan pour ñëw foofu ok bu ma laajee ndax maa ngi plan pour ñëw foofu ndax xaw ma daf ma ne waaw daf ma ne ndax yaa ngi plan pour ñëw foofu wala ndax definitely daf ma ne ndax yaa ngi plan pour ñëw fii ndax plan nga pour ñëw fii waaw daf ma ne ndax xam ndax mas ngaa ñëw si dëkk sangam mooy dëkk bu nekk ma ne ko déedéet ndax yaa ngi plan pour ñëw fii ma ne ko déedéet oh my god ma ne ko ah hey yow de ni ngay waxee moom ñàng na di man ngay amoo sutura maa la gën a ëpp sutura yow xóor na ma ne lu ngay jëw sax sa xarit yi ak lu ngay wax man duma ko def man may def comédie rek ku la wax ne ñi ma topp yëpp laay wax seen mbir may wax dof yi nga xam ne dañu war a jàngee ak ñenee ñi mel ni ñoom jàng si moo tax tudduma tur defuma dara lu may wax dara new si comédie ak waxtaane la def anyway yow lu ci sa yoon yow nga waane te si butu xab sa randuma yo get out nga naa ma stop eating live yow who the hell are you nga may stop eating yow get to hell eating live lu ci ne maa def taati ne ne maa saaga ndeyam lan mais comédie suma comédie lekk ma ne yéen du ngeen tukku ta ba danañ leen jaale de taxawal man xamuma seen jot sax léegi paa bi naan oh my god ma ne ko lan la maa ngi kaam di wax moom ñu noonu ni ngay waxee ma ne ko nu may waxee lu si ne nga lay ma ndax mos naa ñëw dëkk nangam may la noo ndax yaa ngi plan pour ñëw fi may la noo nga naan ma oh my god léegi loo bëggoon ma wax la ok guys bu ma paa bi laajee ndax maa ngi plan pour dem si dëkk boo lan lan ngeen foogoon ne laa ko war a wax kon leneen lu leneen lu ma ko waroon wax yéen laay laaj rek dama ko waroon ne ko waaw wala lan jos waxal leen ma lan la paa bi bëggoon ma wax ko because dimbale leen ma su dee li ma ko wax ne waruma ko ma ne ko ah mu ne ma ni ngay waxee dafa raglu xaw ma lan daf it's not it's not good something like ni ngay waxee baaxul <laughs> ma ko lan la xam nga lan la foog naa ne because suma vidéo yi dama dee nekk soo savage you know like di just wax suma askan bi you know and stuff like <laughs> moo tax yeneen nit ñi su ñëwee si man foog naa dañ dee ñëw ak that énergie ne Amie Jobe dafa dangaam wala dafa mën a defante wala dafa nangam you know yeneen góor yi loolu la ñuy ñëwee ci man already dañuy ñëw xamee ma si xol already from suma vidéo yi foogu leen loolu soo léegi dañuy ñëw commencé di wax ak man waxi defante ak seetlu nu may waxee ñoom di defante man already di ma attaqué already te fekk waxuma dara defuma dara lu xaay waaye bi ko ñu ngi jëlee suma vidéo yi ne Amie Jobe daf dee wax lu ko naqari wala lu nekk si xelam wala Amie Jobe dafa dangaam wala dafa yabaate wala I don't even nu ñuy gisee suma vidéo yi you know <clears throat> foogu ne mayin boobu lañ dee indi si man man loolu laa dee gis si ñoom dañ dee ñëw rek di ma attaqué guys I swear God for no reason te ñu ne dañ bugg a takk noonu de <laughs> léegi <coughs> paa bi ne ma si saa si paa bi ma def baat gars yi taxaw rek moo xal la ne ma oh my god ma ne ko what happened <laughs> yow looy oh my god wuy yaay war naa na beneen yaa ma ne ko man de defuma nga ma laaj rek ndax mas naa ñëw fa mooy la déedéet ndax maa ngi plan pour ñëw fa mooy la déedéet because right now néew ma di plan pour ñëw foofu right now ndax loo ma may la waaw anyway man ku macoor lay xut koo xam ne xamul understanding xeli xale la xamee soxlawuma ko déglu de ma ah mu ne waaw xam naa mu xalaat ne man dinaa xalaat ne man lay mu ne ma mu ne waaw ma ne ko am mm, na ma nopp mu del ne ma lan malaa bugg malaa wax la ne ndax malaa bugg ndax yow tey ku la wax ne nga jox ko sa numéro yaay ak sa numéro papa wala nangam wala sa mbokk boo xam ne daal moom la war a waxat ndax danga ko ndax danga ko joxe su ma la waxee ne nga jox ma sa numéro waajur rey naa ma wax ak ndax danga ma ko jox ma ne ko déedéet mu ne ma oh my god mu dellu ma waxaat oh my god mel ni maanaam man maa naqari mbir te bon xalaat leen rek guys de ma ko waaye li tax ngay waxaat oh my god mu ne ma sit tit man di xaw ma dugal sama bopp tey <laughs> <laughs> xalaat leen li rek mu ne seet tit tit xaw ma fu ma dugg sama bopp tey ma ne ko yow duggagoo fen de soo doon wari yaa ngi séet yaa ngi fayin duggagoo fen mu ne ma seet tit tit di ma won ne ma yow daal nga bëri affaire te bon wala something <laughs> <laughs> just si ni ma koy tontu si moom nu muy waxee man das fine nu muy wax ni yëpp dara dara néew si maanaam su ma waxee ne ndax ku la laajtee sa mbokk sa yaay nu maam wala nangam pour waxamu na danga nangu ma naan dama ko woon wax waaw leen lan la paa bi bëggoon ma wax ko dafa bëggoon ma ne ko waaw wala la te xamut ma mas ta wax man man xaw ma ko xëy na moom xam na ma si vidéo yi you but man mosuma koo gis xaw ma ko waxal na leen wax dëgg rek ndax loolu ma normal na pour ma pour ma wax ko waaw moom su gisee sama vidéo yi ba tax mu bëgguma man mosuma koo gis te paa bi xamewul sax nataal taxawal waxal leen guys paa bi wasaaba bi xamul sax nataal ok guys paa bi doon wax ak man nii yëpp wasaaba bi xamul sax nataal guys yow bàyyi di déglu wax bu bari nga naan bàyyi wax bu bari kii xàmmee naa profil bi si ñi may ciita bokk góor ñi may ciita bugguñ ma ñëpp dañ ma lee mere yow bàyyi di wax bu bari soo ko buggut man dama de ñëw fi pour waxtaan ak suma followers si waxal leen yi noonu sof yu leen di jëriñ wala comédie waaye comédie sax daf leen di jëriñ lu may wax nii dafay jëriñ nit yow soo buggul wax ju bari looy déglu wax ju bari kon wax ju bëri fa la wala fidd nga daw by the way nit ñu bëri ñu bëggul wax ju bëri ak noise dañ xamee naqaat moo tax xamee anxiety xamee stress xamoo loolu suñ déggee noise daf leen di jox anxiety ak stress so loolu scientist ak expert yi ñoo ko wax du man so demal nga faj sa anxiety bi ak sa stress mu xadduna bi dafa ànd ak noise xanaa ñu dee sax ñu ngi am noise si bàmmeel I think he's serious, but he's not well, or maybe he's just. I don't think he's not serious. He's just he just know how to get a normal woman. <clears throat> so léegi paa mu ne ma ma ne ko mel ni man wax baaxul wala man dama bon wala dama bëri affaire ma ne ko yow foog ngay nu ngay waxee man nii te xaw ma la yoo xam ne xaw na taal. xaw ma sax nit laay waxal ndax rab yow yaa gis ma vidéo nga bëgg waaye man gisuma sa nataal sa sa wasaab xamul sa nataal léegi nga may laaj ndax man dinaa bugg naa ñëw si dëkk bi nga ne noonu ak ndax man soo ma laajee sama numéro yaay wala nangam dinaa la jox lu tax ma lay wax waaw si si si si si si yooyu noonu yow who the hell are ko who the hell are you ba mu ne ma ne waa ok defal ndànk defal ndànk calm down defal ndànk la yónnee suma nataal ñetti nataal wala dinaa yónnee suma ay nataal ma paree nga yónnee ma sa ay nataal nga yónnee ma ay ñetti nataal something like nga yónnee ma ma ne ko du ma la suma ay nataal yow gis nga ma suma ay vidéo vidéo moo raw nataal gis nga ko ba tax nga ne nga maa bugg ba ñëw soo yow xam nga man maa la xamul yow xamoo nataal sa wasaay xamoo dara mu ne ma see tit non gën maa def de bad guy nag gën maa def jigéen ji compliqué te bon xool leen askan bi dañ dee def jigéen ji léegi dafa compliqué dafa bon te fekk jigéen ji defu dara dafa nekk di protège boppam rek asa jigéen ñu di ko xas xool leen ndax lu ma leen wax fii yëpp paa bi ndax wax naa ko lu jar naan ma oh my god te gis nga paa bi su dee wax oh my god dangay fone man maa nit daf dee yuuxu oh my god <laughs> dama dee bugg a ree sax paa dama ko ree mu jëy <laughs> nekk di ma sonal daal lu mat fukki minute <laughs> wax na koog ma bëgg wax ne maa ngi dem waaye xaw ma lan laay wax ma jos nekk di rey ak moom wax njëriñ gi daal foofu mujjee mooy paa bi daf ma yónnee nataal yi taxawal ma xale ma ne ko yow yaa ma man gisuma la ma ne ko waaye ndax man danaa la yónnee nataal du ma la garanti bi ko mën naa xam gis la du bugg te bugg du ma la yónnee nataal nga ba pare anyway lu ma la yónnee waa beneen nataal <clears throat> léegi ñu d'accord si loolu paa bi yónnee ma ay nataal yi taxawal ma xale leen ne bu ma yónnee nataal yi ma gis nataal yi pare waxuma ko dara du mooy ne bugguma ko paa bi di kool <laughs> ah waxala <laughs> after bu ma paa bi yónnee netaay te rëyu ma ko <laughs> paa bi di gën a koon nag xaw <laughs> ma daal dina seetaan vidéo bi right now I don't know like guys paa bi lu mu doon kool noonu moom laa ko war a wax right now dafa foog ne bu ñu jëlaat téléphone bi léegi naan ko bëgguma la wala nanga just paa xalaat leen lu tax ma koolaat ab bu ma joxe nataal yi ma gis nataal yi ba pare mu xam ne lii laa yi gis naa ko yu xam nga whatsapp su leen da paa léegi di ma kool di ma kool nit soo ko yónnee sa nataal te xëyul la loolu rek te waxal na la ba pare ne bëgguma la ndax wala jos idée bëgguma la wala dama busy wala maa ngi xalaataat sa mbir wala something I don't know you know just looy koolee borom léegi si saa si pour mu xëy la léegi mu wax la ne ok bëgg naa la wala la paa bi di kool di kool <laughs> su koolee ma bàyyi ko mu kool ba sonn bu koy mu koolaat ma bëgguma koo bula xaw ma lan lay def ma ne oh my god den ma commencé di wax oh my god man sama bopp you know oh my yi ma dama commencé di wax loolu naan oh my god paa bi <laughs> bu leen ma gis ni sama vidéo yi may forward duma dee mën a jàkkaarloo nit nii wala bind ko naan ko bëgguma la dama la ji di ma daw nii rek wala ma ignore la you know pour yow nga xam ni kii bëggul ma wala nangam baal di ko di bokkaal di ko ma ne oh my god after ma yónnee ko ma bind ko ne ko jërëjëf merci something like this thank you rek noppi mu koolaat koolaat loolu moom ak si la bay mun naa xam dana koolaat ba tey ay hope ne gis na message bi ba ba du ma koolaat ay ay hope ne mu ngi déglu léegi mun naa xam dina koolaat góor yi day def noonu lu tax ñu di ko def jigéen ji soo ko yónnee sa nataal xëyul la mooy ne bëggut waaye nga koy kool gis na la ba pare léegi you nga koy kool loo bëgg wax la nga bëgguma la nga ñaaw bëgguma la jos <coughs> nit ñi dee def loolu yi leen ko loolu lay laajte da ngeen ma bare lii jën la loo ci lekk du la wàññi dara te soo ba tey lekkuma lekkuma lekk ba am fayda saraax laa lekk ak xaar soo lii suma xañ la suma reer la xalaat leen nit ñi day def loolu ñu bëgg nit ñi wax leen ko you know loolu laa bëgg ngeen ko nit ñi nga xam ne suñ toppee nit ba yónnee ko ay nataalam wala nit ko gis leen te bëggul ñu di ko kool <laughs> waaye nga koolee nit just waaye nit already gis na la and is not interested su dee yëfi love moo tax nga di ko call right now gis na sama taal ba pare buggul noppi boobu noonu mooy ne bugguma noppi bi mooy ne am not interested noppi bi mooy bugguma noppi mooy koo xam ne bëggut waaye bëggut la ko wax bëggut a bëggut laa merloo wala def rusloo la wala nangam yu ne moo tax mu noppi yow nga ne ne wax bàyyi foofu te xóor naa ne bu la waxee lu mu lay wax du la neex stress stress ci xaw ma lan foog naa I don't know riir mënumaa riir li nga wax yow te message bi dem na. you know nit ki gis na li nga wax xëyut jos gis na mooy lan nag amee yéen a ngi mel ni maa def taati neen bi nekk ni jàkkaloo ngeen maa dox ba xal ko sumeeku def taati neen ma suma dee juree jàkkaarloo ngeen ngeen naa ma lii mooy lan lan mooy lan lekk yaasa wala waxtaan bu àdduna wala lan lan ngeen di laajte mooy lan leen fàtte ne man ngeen wax ne maa bon tey jooy nit ñi <laughs> bu leen fàtte loolu de <laughs> bu leen fàtte ne man maay kuj bon ki te mën a jooj yéen yéenay wàllu yu baax yi bu leen ko fàtte ndax ngeen a fàtte loolu ba tax ngeen di jooj suma comédie lekk yi te ngeen a fàtte ne comédien laa wala ngeen a confess dof anyway guys lu ngeen xalaat si nu ma leen doon waxal nii ah noonu la nit ñi di def su dul paa bi sax parce que góor yi ku mën a sëy ak hmm? te soo sëy ñu ne ngaa paa bi man nobuma ko sax tu bëggin bi mu ñëw di ma def de bad guy di ma def like man jigéen bu bon laa te naqari deret di ma wax loo fo nothing te fekk man sax nawuma ko gisuma woon nataalam su ma ko gisoon du ma ko rab su ma sax xam naa moo tax defu fa bu mu njëkkee ñëw si man di wax xam na su defoon nataalam foofu du ko xëyu moo ko ñëw di wax without any nataal you know jas pour mu wax ak man ba pare muy wax ak man da pare def ma da baat guy naan ma oh god <coughs> te fekk man nëbbuma ko sax to begin with I was like what the hell why are you even talking to me to begin with yéen luy seen yoon ci yax yi may lekk ba nga naa raxasu aka jos di wax aka complain mu fu ne ngeen di yéen yéen a gore te baax te du ngeen di tey toppatoo seen affaire you man may ko waane ki tey wax problème nit ñi aka aka jos koo leen affaire aka aka bu leen fàtte ne yéen ñeneen nit ñu baax ñi yéen lu tax ngeen dee fàtte loolu moo ma jaaxal da ngeen di fàtte ne yéen ñeneen ñi ñu baax ñi man maay nit nga xam ne man maay kaani ñi yéen waan stop du loolu ngeen di wax man mi nga su ma defee comédie man xam nga comédienne la te I love it ma defee comédie sax ngeen di kaa comédie boo di ma buli wéru leen di use suma comédie yi may def ne man ngeen di buli ngeen fàtte def ak ne comédienne laa sax de mhm. ngeen mun a buli te bon te confis dof ngeen fàtte sax ne comédienne laa mhm. <clears throat> ba pare ngeen ne man maa dee kaani ñi man maa bon yéen ñi nga xam ne ngeen may bëgg kaa ba su ngeen xamul lu jël suma comédie vidéo di ko kaa suma comédie vidéo yi di ko buli di si ñaawlante yi noonu xaw boppi jën moo nasty. You eating people private part, that's nasty. This is just face. nit ñi wax ne man lu may def dafa nasti te ñuy lekk nit ñi seen lifin loolu laa koy wax noonu di lekk bagage nit ñi noonu loolu moo loolu moo salte lekkam bagage ngeen di ko def ba naa man ngeen di xas am yi lekk jën jën jën yuñ lakk ngeen di def salte soo laay gut fis yaa koy yëg mu ne bëggu jën Youssou Ndour watch it. I put it in the media. I put what I want that I know that it's not gonna harm no one, including eating this. I am a comedian and I do promote my culture a lot as well. I don't come here to pretend to be some whatever. I come here as the African woman I am. Anyway, what is your problem? Who asked you to watch it? This is not, it's my right hand, it's just the camera. ba leen bu ñu bindee salte ba ñu jaay leen ñu seen tuun gi moo te mënuñ koo ngi ànd ak sorry guys sorry am sorry guys comment ça mu ni lu ne sama soj bi dina ma rey comment xam nga sax loolu nu mu ñëwee sama bopp bi sax xalaat loolu laa xamul ah mooy sama biir baa ngi metti nit ñi ne wax loolu nii lu askan bi hmm. man moo bëggee jën moos jën moom ma gënal ndawal jën gënal ma ganaar gën ma lu ne

li nga mu jën wi la de yëpp jeex na jóor yax yee ci des bu ko lekkee dee spinner bu ma doon lekk yépp loolu benn la rek si nit ñi ci góor ñi li ñuy def ba tax jigéen ñu xam seen jigéen ñu gëm seen bopp te am fulla yëpp lu tax seen lii ci la bokk. ndax góor ñi ñooy ñëw ni malaaka mu sibbut duñ xam li ñuy waxee yow. di wax waxi dof yoo xam ne is insane limon fa baax si yaram surtout day limon xoolit yi fa baax si yaram mhm. xamu leen lu baax si yaram du ngeen ko lijjanti te kuy lekk lu baax si yaram ngeen di fa dof xam nga wéru leen acca leen anyway yéen ñi may wax dof laa waxuma yéen ñëpp ku doon nit xam nga sa bopp tey weex nag waaye fa baas yaram góori askan bi nga xam fa ñuy ñëw si yow ak seen dundu métit gi ba kon pis dof soxot mën a bëleem nit dundu just have fear and you know going crazy <clears throat> ñëw na di wax yow si façon jikko yooyu ak façon waxin yooyu yow mi xam nit nga xam ne ñu ni ñuy waxee man nii hmm. ba pare ñu ne yow lu tax yow yow lu tax yow bu góor sëy daa am problème jigéen ñi dee nangu di leen jël ci loolu bañ dundu métti ñoom tam xàmmee wuñ luy góor gu baax mbala fonkuñ seen bopp ragal nañ te xam nañ seen jikko ji baaxul waaye ñu jël leen bi ko fonkuñ seen bopp wala lan wala bi ko ñu ngi yàkkamtu doo seen mi ne ñooñ dañ bugg a sëy wala ñooñ dañ baax noonu ñu ku mënta protect boppam taxut ne dafa baax te xam nga lan la góor yi de dañ day gis moment yi nii ñu xam ne dañ gëm seen bopp ñu xam ne duñ jot si borom kon ni ñuy waxee ba convaincre borom ba jot si moom sax munuñ ko rek ñu xiit borom si saa si di ko di ko saaga bu set xamoo loolu askan bi ñu bari ñu may saaga xam nga tax di ma saaga jos bi ko gëm sama bopp ma lu rek ma leen naqari lu rek xam leen loolu guys waaw lu may wut waaye foog naa mu nga fële waaye si amuñu dem jëli ko xaaral ma ñoo dem guys dem raxas suñu te tuur yéex yi raxas palaat bii nii <coughs> mooy comme lu ma doon explain Ali yoroon rek ne even ay jigéen sax ay xarit soo xamee ay xarit ma la xam school bi ak ay gune jigéen yoo xam ne you know wala even ay gune góor nit ñoo xam ne gëmuñ seen bopp wala ñoo yaru wala nanguwuñ seen kilifa yi yar leen ñu ngi jos lu leen nee def you know <clears throat> nanguwuñ sax ticca yi yar leen suñ la gisee yow nga yaru focus def lu nga war a def yëpp oytu seen jikko yu yi dañ lay def ennemi just because of that te fekk ay gune yu ndaw lañ sax de waaye already seen bopp bi xam nañ ne lu ñuy def waruñ ko def seen bopp bi xam nañ ne yow sa ëllëg mooy gën seen bos ñoom suñ continuer ni ñuy def tey nga continuer ni ngay def xam nañ ne yaa leen di gën ëllëg loolu rek lañ lay xañaane already di la def ennemi right now te fekk gune yi ndaw lañ ñu ngi ci school bi ay high school ay fukket ak ñeent fukket ak ñett fukki ak juróom juróom benn juróom ñaar te lañuy des fa ñuy gis ne yow yaa ngi pass every every exam yaa ngi focus yaa ngi jàng su ñuy def yu bon yi nga romb leen ñibbi loolu rek mooy tax ñu def la ennemi baleen sama palaat bi loolu rek ñu ngi xalaat ne lii de laa war a def li kii di def jàng focus bàyyi yu bone yi waaye léegi instead ñu def loolu duñ ko def ba pare dañ lay def ennemi di la attaque ci iskul laa la wax iskul dé moo jaay la nga ko faatu doon wax te dañuy xëcc nit ñi ñu baax ñi yëpp lañu ñu bëgg a xëcc ñu mel ni ñoom seen groupe bi kon ñooñu nanguwul ñu ñëw di la attaqué te ay gune yu ndaw lañuy ñuy nekk am te li ñu des fi la buggee def xarit nga bañ kaa ñu dem taxawaalu fële nga bañ kaa ñu dem def lii nga bañ ñu commencé di la buli di la attaqué di la xooxee dof di la ñaawal di ree sa dàll ree sa jaket bi ree li nga sol ree sa bopp bi just xut luñ la ñaawale fekk it's not that it's just because the fact ne nangu woon ànd ak ñoom so askan bi àdduna bi léegi foo mënti nekk tubaab nit ku ñëwul foo mënti nekk ngaa war a gëm sa bopp te oytu yenn yi see boo ni ñu ñaawal la loolu laa leen di bàyyi maa ngi dem te xam ne yeneen nit ñiy def lool soo ko defut ennemi lañ lay def si saasi just because xam nañ ne li ngay def moo baax ñu xañaane la ko am telling you this parce que nit ki nga yar sa bopp moo gën a seer moo gën a jafe lu ne mën ngaa jënd oto jënd lu seer you know whatever that's nothing it's just material xaalis rek moo ko may ta xaalis ku ne mën na ko am criminal sax dañ koy am cagay sax dañuy jaay seen bopp di ko am bot nga yar sa bopp moo gën a seer te jafe di ko ina woog moo gën a naqadi ku ko mënta def dafay xañaane keneen ku ko def du nangu boroom xame ñu noonu mel noonu fa koy mere léegi dafay nekk bugg a def boroom du baat gaay bugg a def boroom ku bon bugg a def ñëpp boo def boroom ku bon <clears throat> moo leen gune yi jàng fii seen moroom ñu jàngu dañ leen di xamu leen far wala xamu leen jànq kenn nobul leen da ngeen ñaaw du ngeen di génn xamu leen life moo tax ngeen di jàng moo tax ngeen di pass exam because xamu leen life seen life dafa boring sad seen life seen xaddu dafa daw yaram oh du ngeen génn kenn nobul leen xamu leen far du ngeen di génn du ngeen di enjoy xaduna toog jàng rek mel ni dof moo tax ngeen di pass exam kekekek seen life bi kenn buggut ko te dañuy duul xóor na leen ni ñoom seen lay bu bon bi ñuy def di parti di ñàkk jàng di def di koy xaj danañ ko réccu ay fukki at ci kanam ñaar fukki at ci kanam te fekk ay gune lañ laa la wax gune gune ñooy already xam xeli soxot bi ak ak xel bi waxuma la ak léegi dañuy bëgg a yeneen gune yi jàng pour gune yooyu bàyyi seen jàng bi ñëw mel ni ñoom te la ñu des jos xañaane nañ gune yooyu seen jàng bi xam nañ ne gune yooyu suñ continuer nii balaa ñuy wax ñaar fukki ci kanam ñoom duñ mën a wax ak gune yooyu fii la ñuy neex gune yi nekk fële loolu la ñuy commencé di yàq di poison mind ni gune yooyu pour ñu ñëw mel ni ñoom ñoom ñëpp ñuy def lu ñu war ñu war ta def yooyu noonu ñoom ñëpp ñuy sàggane jàng lay ko faatu mu ngi néegam ni konoon moo su ma ko waxee léegi ni bëgguma koo sonal xam na lu muy def mun naa muy jàng wala ay dono konoon mu wax la ko démb mu jaale ma ko faat doon wax moromam ñuy jàng bu ko dem université yëpp ñeneen ñi jàngu dañ leen dee buli just because ñu ngi jàng di leen waxee naat xamal leen ay tur yu bon naat ak xawma lan lan lan ay different tur di leen wax ne dañ lamb kenn bëggul leen xamuñ booy boyfriend surtout bu ñu leen gisul ñuy farantu te fekk gune gi mu ngi rafet fu mu toll nit ñi di ko topp muy wax nu ñu naan ko kenn bëggul la nga ñaaw wala nga lii moo tax kenn bëggul la ci ay gune yu ndaw yoo xam ne waruñu ko xam far sax fukki at ak juróom benn sax xamuñ ko ay fukki at ak ak ñeent jëm kaw ñoo dee wax lii xamoo far kenn buggul la moo tax ngay jàng wala nangam te fekk xam nga kañ lañ lay wax loolu buñ la laajee sa exam result lan la su exam bu mag génnee ba nit ñi xam seen result xam nga dafa xam ñeen ñuy laaj seen xarit yow la nga xam kële ne la nga xam suñ xamee li nga xam dañu commencé di wax yu bon yi waaw parce que xam nga yéen moom seen groupe gi wala yow ak sa xarit bi du ngeen di génn ken xamu leen àdduna moo tax wala yéen xamu leen boyfriend kon kenn nobul leen ngeen lamb wala jos xamu leen boyfriend moo tax du ngeen di génn du ngeen di enjoy àdduna moo tax ngeen paas moo tax ngeen xam ressources yu baax yi ndeysaan saat xamu leen àdduna ñun de dañ xam àdduna faale wuñ jàng bu baax bi ko ñun dañ xam àdduna ñun dañuy xam xaalis suñ xamul suñ jàngutit àdduna jàng duy maye àdduna jàng rek duy maye àdduna gune yu ndaw ñooy wax loolu seeni waram de pour buñ jàng di ko wax seeni morom yu ndaw de exactly soo soo xamee gune goo xam ne nii mu ngi jàng dee ko motivé bi ko soo xamoon lu muy daj ci yeneen moromam ñu jàngut mm-hmm. comme internet bi noonu la mel boo fiy dund lu lu ok ñeneen ñi koy dund lu bon dañ lay def ennemi just because yaa ngi dund lu luñ war a dund ngay dund ñu lay def ennemi just because of that guys just because of that soo àdduna bi nit ñi nga xam ne ñu ngi dund luñ war a dund ñoo pare ne ñeneen nit ñi dundu luñ war a dund yépp lañu war a bàyyi ñëw ci ñoom ndax ñoom buñ rusati buñ tu tiitati ba pare léegi gàcce gi ñu bokk ko xalkare gi ñëpp bokk ko suñuy xalaku buñ xalaku ñëw kenn te kenn du leen topp si loolu àdduna loo si góobee gar ko de leen góob rek de tey gar yéen kenn kenn du ñëw si seen tool buñ jaale boobu di góob ok góob leen seen suna si soo ngeen paree ngeen gar ko yéen kenn naan ko ok kenn new fi di góob ay suna mel ni ku ñuy waaj a jaale ok xam ne suna si xam nañ sànqal si lu ñuy indil xam ne yëpp ok góob leen ko kenn du ko góob you understand this so focus leen guys yéen ñëpp focus leen ok jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah naa leen gis incha allah and bye guys